ci mbiram nag la ñuy desandi ba tey rek waaye bile yoon nag dañuy wax rek ci chauffeuru camion bi nga xam ne rek moo li njiik njaak moom la ki nga xam ne moo yenu euh, bakkanu acteur bile di Jean Paul Daimeda doonoon ku ñu ràññee lool ba faral sax mu faatu ci bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xam ne rek moom la daal waa Seneweb daal di joxe waa commissariat de Jëppal daal jot nañoo tek loxo benn suspect te du kenn rek ku dul chauffeuru camion bi doon dawal dal rek ci kaw taxi bi nga xam ne rek moom mi di Jean Paul Dalmeida nekkoon na ci ba mu jural ko rek ay blessure ak ñàkk deret bu bëri ci fàttali sax gisoon nañ fi rek ap benn poste don de sang boo xam ne rek dañu ko doon ñaanal sang ngir rek ñu mun ko sauver moom nag ginnaaw lool nag mu ñàkk ab deret yu bëri moom nag di Jean Paul Daimeda daf cee rek mujj bakkenam yàlla suñu borom daal jël ko fu mu ne nii nag conducteur boobule di CS mi wuyoo rek CS daal di nañ koy jébbal tey ci kanamu procureur de la république ngir rek homicide volontaire bu ñu sukkandikoo ci waa Seneweb mi joxe xibaar bi ginnaaw njeexital bi nga xam ne rek enquête bi police de Jëppal def nañu ko njokk yi lii rek lañ leen njukkiloon ci ay xibaar ñu leen di jox dig daje ci yeneeni xibaar file ci Dakar Media TV woy leen rekk saa su ne rek di abonné ci chaîne bi jërë jëf ñu leen di jox dig daje rekk ci yeneeni xibaar file ci Dakar Media TV